di ci taxawee at bu jot it suñu borom di def ñu gën di tawfeex yi ñu gën a yokk ndax li ñuy wax ne mbirum Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ren sax waajtaay yi xaw na yeex lool euh, que daan nañ ko waaj lu ma trois mois quatre mois ren ci trois semaines lañ ko waaj parce que ku xam ne Covid bi fi jaaroon xawoon na gàllankoor lu bari ba am na deux ans yoo xam ne defuñu sax loolu moo tax waaw. nga koy amal ci jamono sant la waaye gis nañ jamono jaxasoo na jaxasoo na jaxasoo loolu moo tax sax ñu war a gën a insister ci sant euh, démb laa wax naa ko nit jamono ni mu jaxasoo ñenn ñi dañuy wax ni ni ni mbir yi seere ba pare ngeen di sant dama jàpp ne fii mbir yi seere dëgg fi lañ war a sant parce que am na ñu tumuranke ci lekk am na ñu tumuranke ci faju am na ñu tumuranke ci set. te yooyu yëpp ci bis bi ci la bokk yi euh, ñu ko commencé démb ba léegi mi ngi am ay consultation mi ngi am ay don de sang mi ngi am euh, set setal ci dimanche bi li ñu weesu euh, aussi ñu ngi ñi ngi ciy bernde ñi ngi ciy bernde ndax li may wax saa su nekk nit ñi lott nañ ci ci dund gi sonn nañ ci dund gi tey yëmul rek sax ci ci ci ñi nekk ci taax yi mais man mi nga xam ne dama nekk ci àll bi yor fa ay daara so gisé susik ni la mel dafa wéx tal jur gi ñi ngi dé amatu ñu ñu dijar bu ñu démé ba saako ripaas di jar euh, li saako di jar kon nit ki talutul bopam sax waxuma la di tal jurum te yoy yëpp ay problème la ay jafe-jafe la yo xamné ne ñu ngi koy dund motax dama japp ne fim mu nekk nii ku dawul cant sax fi da nga wara a ngir nga def ay berne jox ko jamm yalla parce que soxla nañ soxla nañ lolou bokku na ci li nga xamné ñun bi ñu toogee ab diir defuñu ko it am na ci ay mag ñoo xam ne dañuy woo sax nit ñi même su fekkente ne jantu leen consultation bi daam am parce que soxla nañ ndax nit ñi bëgg nañoo faj nit ñi wératuñ te euh, li may wax waxuma sax nit ñi ñàkk a wér gi mais hôpital yi fa war a faj nit ñi ñoo njëkk a feebar. justement anam lay itam ngir ngeen dugal seen loxo ci doxalinu réew mi rawatina ci tabax ñu rawatina li nga xamante ni moom la ñu kër docteur yi mais comme ni nga waxee parce que ñun damay wax ne ñun ñu tabax réew né mënu ñu tabax jikko ñi tabax réew nak suñu wu ci tabax jikko buñ fi tabax borom jikko yaaxé ñaar borom jikko yi ñaaw yaax parce que euh ndaw ñi buñ amone jikko ju rafet duñ xol seen alal di ko buñ amone jikko ju rafet duñ xol mbokk mu leen jege ci déret wala ci xamé wala ci andodo ñi tim ko jam ko ba mu dé loolu lan moko ko sabab mooy jikko yu ñaaw yi jikko yu ñaaw yi nak ñan ci ñan la tambalé dama japp ni ci ñi nga xam ne dañ leen di dénk ci lañ tàmbalee ndax euh, jikko ju rafet dëgg dëgg dëgg mooy nit jox la mbir nga sàmmal ko ko téyel ko ko ba bis jot nga joxaat ko ko li li nga ma dénkoon mi ngi nii dara manqué wu ci. ni ko Seydina Omar doon defee naa Omar ci bi muy nekkee nekk amirul muminin wax nañ ni daf daan wax naan su nit doxoon ba fa kastalu ci xeer man man Seydina Omar maay responsable daawut nelaw guddi da daan wër. di xool kan moo tumuraanke ci lu mu dundee mu dimbale ko mais ñun tey ma sax euh, état waxuma keneen mais tey doo population bi ñaata nit ngay gis seen i compte dell ak i milliards te ñu dëkk ak ñoo xam ne dañu xiif sonn lool soxla ko. am na ciy denc ba ñu ba ñu leen di ginnaaw di wutal jeex na ak ñi ciy denc ba seen i njaboot di ko sàcc di ko génnewaat te dama jàpp ne alal ju toll noonu waree su ko xaw ma fu ko nit war a jëli ba war ko denc ci kër. te pourtant kooka am na ñu mu dëkkal ñoo xam ni buñu añee du ñu reer wala bu reeree du ndékki suba am na ñu mu dëkkal ñoo xam ne amuñu cent franc bu ñu passé pour dem hôpital war a faj consultation bii ñu doon def sànq dama maa ngi koy nettali léegi dama masa taxaw ñuy wàccante ñaari soxna romb ma tàng jër ma léegi kenn ki di coow morom ji lan moo tax yóbbu leen ko hôpital yenn saa bi nag ba ci état bi mu ne ko xanaa balaa ngay yóbbu loo ko passé pour hôpital waxuma la war a egg hôpital ñu bindal la waxuma dama jëlale sax ñun suñu suñu hôpital yi nañ ko waxante nañ waxante dëgg dem fa taxut a faju man lañ la jox ay garab nga naan bay bëgg a dee mais taxul nga faju lan moo tax ñoom buñ feebare duñ fa fajoo parce que lu tax mooy matériel ba fa war a nekk xam-xam ba fa war a nekk ngir faj ñu amu fa ña fa nekk ñu ci ëpp branlo moo leen fa baax du xam-xam wala boog li may wax diplôme léegi dafa wutee ak xam-xam loolu nag xëy na ndaw ñiy jàng ñoo ko moom ndaw ñi da nga gis ne léegi ñi ngeeg seen i diplôme mais est ce que ñi ngeeg seen i xam-xam li tax ñu jox leen diplôme boobu. loolu de xanaa day mel ni li waajo waxoon hmm. kan euh, lan nga mën laajatuñu ko waaye ñu boole la ñuy moo ñu boole te loolu mooy loolu mooy li fi am léegi. branlon yi nag yemul sax ci état képp de wala euh, borom ñii de ba ci dafa egg ba ci kilifa diine yi da ngay am sa taalibe léegi mu xaw am nu mu demee nga yëkkati sa téléphone woote woote warul demee noonu kenn ko ci nekk nañ ko jox. kenn ku ci ne place ba mu méngul la méritoon nañ ko ko jox parce que ñi koy fekk si waat ëllëg moo tax su fekkente ne da nga bàyyi nit mu dem ci lu mu méritowul ëllëg ki si biir lu mu fa def jàppal ne am nga ci responsabilité bu mag a mag a mag ñu jëm ci ay élection lan ngay ñaax ndaw yi li ñuy jëm ci élection yi mooy ndaw ñi nañu xam ne paaka ak jaas bi seen ngànnaay seen ngànnaay mi ngi ci seen poos mooy carte électeur bi ñu yor mooy seen arme bu leen kenn utiliser ñi leen di jógloo seeni doom a ngi ci seen biir kër ñu toog seeni doom bu ñuy génn ay 4 x yu baax la ñuy yor ay 8 x yu baax la ñuy yor téléphone ya ñuy yor buñ ko buñ ko jaayam mën na tabax entreprise te bu ñuy def loolu yi ñuy def duñ ci gis kenn seen doom ñoom ña koy def ay nervi li ñu ñëw ñu ànd ak ñoom kenn du leen sax jegi kon ndaw ñi nañu xam ne ñoom bu ñu leen jëfandikoo ngir seen propre intérêt yi bopp déedéet nañ nekk ndaw ñu conscient nañ nekk ndaw ñoo xam ne dañuy am dañuy bëgg dara ëllëg bëgg dara ëllëg nag bu mu tax nga topp nit ngir mu jox la dara nga def ci sa poos lim lay jox nga def ko ci sa poos boo laa ngay egg fa nga jëm mu li ñuy am nañu ko suñu doole may nañu ko suñu xel may buñ ko yaakaar ci loxob kenn dañuy wax ne liggéey amu fi nit ku nekk am na loo fi mën a liggéey parce que boo génnoon fi dem bitim réew léegi am na ci barab yu bari yoo fay liggéey te la fay liggéey nangoo koo liggéey ci sa réew kon ndaw ñi bu ñu nangu doon xajub kenn bu ñu nangoo doon muusu kenn bu ñu nangoo doon xaru kenn nañ téye seen carte électeur bu weta jotee ñu xool ka leen soob ka leen ne kañ am ci moom yaakaar ne woteel ko waaye ñu jaarale ci defal jikko yi ndax ku ne xam ne itam ci biir la dugg maanaam internet bi ci xew yàlla na ko yàlla moom moom musiba naaru daayi la mais nag li ñu ko li ñu ko teg xamalal la lu ñu préparé wu suñuy ndaw avant ñu di leen ko gis nga ñam balaa nga koy jox kenn mu lekk ko da koy waajal soxna yi xam nañ li ñuy wax danañ ci def biir bu yàgg ngir waajal ko ba koo ko jox mu mën ko mu mën ko consommer normal mais ñun suñuy ndaw dañ leen a waajalut ba pare indi internet ñu ko tës ci seen kaw te li leen ci arrangé wul ñoom li leen ci arrangé wul ñu ngi koy bloqué li leen ci arrangé wul ñu ngi koy bloqué de li nga xam ne nag day promouvoir mbon ba ndaw ñi dootuñu am xelum toog di saytu ñoom la ñuy def ak la ñuy dindi loolu lañ ko bàyyi muy muy continuer kon dafa mel ni ñun lañ bëgg parce que lu la arrangé wul nga le dama ko fiy dindi dama koy bloqué dootul génn kenn dootu fa jàllale te li nga xam ne nag moom moo arrangé wul population bi yaakaar naa dañ ko bàyyi mu ne fànn bàng nëbbutootul damay wax ndaw ñi ne ñoom liñ leen di tuddee naan consommer local dëgg la baax na mais consommer local bi gën dëgg dëgg ci ñun xamoo ban mooy jikko yi fi maam yi bàyyi woon ñu bañ a jikko benn jikko am ay référence ay modèle te bañ a mode ndax mode moom mode rek kon nañu nañu nañu jëlaat mag ñi def leen référence roy ci ñoom seen i jikko. laaj bu euh, moo ci sa gis-gis. waaw question boobu dinaa xaw a mal xaw ci tontu. parce que euh, bi muy am bi muy ba léegi may wax ak yow nii si groupement actualité lan moo a gëstu mais li mën a xew te mooy kilifa. dafay xam ni kilifa la kilifa dafay wodd boppam kilifa dafay wodd làmmiñam kilifa day fex ba day fexe ba nit ñi mucc ci loxoom waaye fexe ba mu mucc nit ñi mucc ci làmmiñam euh, fexe it ba li muy li muy wuyoo mu di ko nuróo fexe it ba ndaw ñi nga xam ne dañ la jël def la ngay référence dañ la jël def la ngay idole jël la def la ngay kilifa ndaw ñooñu di dégg ci yow kàddu ko rafet di xool ci yow kàddu gu rafet di roy ci yow doxin wu rafet euh, te ñu xam ne ku fi mën a nekk doon kilifa dëgg la ci ñun la sababoo ñu ne ko fi ma yàlla moo ko fa téye parce que yàlla bi muy yónni Moussa ci Firxaw na nga xam ne ñoom ñaar seeni jamono kii mën nañu wax ne ñooñe ca jamono jooju moo fa gënoon te ñam jamonoon te lool kii ñam jamonoon te moo ci yées muy Firxaw na kii baax loolu kii bon loolu te yàlla ba mu ko yónni ci bon gi ki baax gi ba mu ko yónni ci ko bon gi dana ko ba fa soo eggee na wax ak moom wax ju dal wax ju posé wax ju teey wax ju nooy bul ko offensé kon suñ borom ñun suñu sukkandikoo ci njàngaleen suñ borom jàpp naa ne erreur yi ñuy dugg yu bare bare bari euh, du ñu dal mais nag malheureusement ñun dafa mel ni dañu jàpp ne rek wax ju ñaaw tey mooy tax nga egg fenn waaw xewit la Euh, danga gis sax nit nit ku nit ku baax bañ naa ko tey nga gis xaritu démbam dem génne ci ay mbóoti démbam ñëw ne ko faa nga ci internet naan diw mi ngeen di toppale diw mi ngeen di waxal nii la meloon naa nga mu mel mu mel ne léegi mbaax moom euh, dafa rafle ci réew mi te mbaax tooñ la ci réew mi léegi mais bu doon kii def lu bon kenn amul ci moom soxla surtout nag dañuy wax euh, mbon gi nga xam ne ñu ngi koy promouvoir ci réew mi mu mel ni daf fi ganese rek mais am na fi am fi bàyyi am fi bàjjen am fi nigaay kenn du ko tudd ku ko tudd ñu daal ci sa kaw wax la lu bon fan kon loolu ay kàddu la yu ñu doon jàllale rek ci ndaw ñi ñu gën a góor góorluwaat bu baax daal te xam ni ay ndaw lañ te ñooy yaakaari réew mi ëllëg